tey jii itam nag mooy sunu ñeen fukkeelu ajjuma ak juróom-ñaar kon tey jii ci ajjuma ji soxna Mame sa mbakke ci Italie moo jaayante añu jumaay Tuuba soxna Mame Bousso ñu ngi lay jaajëfal sa jëf jiitu na bis bi ñaan yàlla suñ boroom sëriñ Tuuba Cheikh Mahamadil Muntaxa yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ngeen baal ñu àq alhamdulillah